Mbacké li nu gis alors euh, ndax mën nañu craindre le pire euh, ci hivernage bii di ñëw malgré li ñu annoncé yëpp ni koppar waaw parce que dañuy doog a door nawet bi dugaguñ sax ci oxset mhm. wala sax ñu dugg ci août bi nga xam ne moom la ñuy xaar mooy gën a euh, taw mhm. mu demee nii à Touba donc il faut craindre le pire avec les mois à venir Touba nag man li ma si jaaxal Mouhamed mooy Euh, lan dañoo amul expert bu ko mën a solutionné ah, dañoo amul ingénieur yu ci mën a taxaw <laughs> wala dañoo amul koppar yu ko mën a liggéey uh-huh. parce que Touba am na chance nekk ci centre te Touba li ko wër boo ko génnee yëpp àll la te àll boobu yëpp ndox mii di taa mais amoon na benn je sais ay kanu canal yu ñu mënoon a def génnee leen ñuy dem àll ba bu ko defee lu jëm sax ci yar bi ñuy def ci ranch de Dolly ak Jolof bi nga xam ne gars yi dañuy obligé di màngaan bu saison mhm. sèche bi ñëwee ngir mën a am ñax mais mënoon nañ leen canaliser foofu à cause de ndox bi nga xam ne am na lu ñu koy utiliser de sorte que day gën a defar àll bi foofu ba kenn mhm. dootul bouger mhm. ti bi ñu mën koo wàññi xaw ma manque de de vision la man je ne comprends pas mais ce qui se passe à Touba war nañ ko mën a solutionner. te milliards yi ñu wax yëpp def nañ ko ci assainissement bi. te chaque année muy taw muy taa man loolu vraiment ëlëm na ma. ëlëm na boo xoolee sax organisation bu toll ni Touba ca kanam demoon na ba dugal ci loxoom. Mhm. demoon dugg ci assainissement bi am yu mu ci joxoon comme jéego mais entre temps qu'est-ce qui mhm. man xaw ma là où le bas ak lan moo tax état tamit boobu ba léegi mënul fexe ba taxaw ci xoolal le directeur de l'ONAS nee na def nañ foofu cinquante deux milliards. oui ñaari fan ñaari fan ñaari fan la ko wax. xanaa dañoo tawte. <laughs> mu taw taw bu dafa tawte mu tooy. parce que man mënuma comprendre ni affaire yi demee xoolal au kii aux alentours de la grande mosquée. ni muy taawee euh, du côté de la région si on peut avoir les images. les images ah waaw à du côté de la région mais demal gis nga boo demee côté Kër Sëñ Fallou. ba ci weti jumaa bi alentour yooyu noonu yëpp ba ci côté kër sëñ naa bu sëñ Fall mais dafay taa ba doo comprendre. Mhm. te foofu ci weti grande mosquée de Touba la. ko loolu pour man c'est inadmissible. Mhm. ndax foofu boo ko xoolee mooy zone centre Touba. nan la ñuy mën a fexe ba foofu chaque fois bu tawee foofu tam di taa ak quartier périphérique yi ay daaru marnaan daaru rahman mais ñooñu dañu sonn te chaque fois on reprend le même scénario et après la saison des pluies on nous dit que y a des programmes ngay gis ñuy gas comme ay kaña di def ay lu kenn xamul ci biir dëkk bi mhm. te ça ne à rien loolu nag vraiment j'aimerais comprendre du point de vue technique c'est quoi la défaillance bi nga xam ne malgré les travaux yi nga xam ne def nañ ko à Touba mënuñu fexe ba solutionner le problème des inondations tout. Touba li ko wër yëpp. ci ah. àll bi mënoon nañ fa déverser les eaux de pluie. am noo xam ne mën nañ fa def expertise bi moom xëy na la ñu am loolu laa comprendre ah. parce que comme euh, bassin bi ñu def zone de captage pourquoi pas ériger des bassins. Mm. yoo xam ne dinañ mën a contenir de l'eau parce que yaakaar naa amoon na bassin bu mag bu ñu fa defoon euh, y a un an pense foogoon nañ ne dina solutionner mbir mi mais apparemment ba léegi affaire bi taxul mbir mi mën a solutionner wu. qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faudra faire ndax Touba it ñëpp xam nañ ne le apporter. surtout au Sénégal. donc mhm. état war na ci mën a taxaw parce man état laa mën a wax ay Touba ca kanam ñoom xëy na am nañ volonté. ay privé la une organisation citoyenne. boo xamante moom li muy def benn volaa la lu nguur waroon def la moom mu koy sasoo. mais nguur gi moo si war a taxaw ak la mairie de Touba. Mhm. parce que budget municipal de mairie Touba ëpp na 4 milliards ay milliards ngay dégg. ñoom it lan ñuy def ci assainissement de Touba. Mhm. loolu yëpp ce sont des problèmes yoo xam ne y a des autorités yu ko war a solutionner te chaque année on reprend le même euh, refrain. il est temps nag sa ça surtout que mois bi euh, année bi màggal gi day dugg septembre. donc day dugg ci digg nawet. digg nawet donc fekk ñuy egg màggal. war nañ mhm. cee mën a indi ay ay solution mhm. mi ngoog président. Euh, par rapport ak inondation yi à Touba gis nañu ne ñetti taw yu mag ñoo fa amagum mais euh, boobu ba léegi ñu ngi annoncé koppar ñu ci def déjà directeur ONAS bi ñaari fan ba mu annoncé ne defar nañ cinquante deux milliards ci wàll wi ci la taw euh, quartier yëpp inondé maintenant nag ni ko Ndeye Fatou waxee ñun bëgg nañu xam en vérité lan mooy problème bi en fait. boo xamee nga ma maa bëgg a jaaxle ci. non jaaxal na ku dul yow président wax wax mhm. euh, jàppoon naa ni ouvrage yi bu ko defaree peut-être dina soulager nit ñi. Mhm. mais lii aussi day montrer ni peut-être euh, en tout cas ci Touba euh, liggéey yi ñu fa defoon montrer na ses limites. Mhm. mais loolu tamit day reposer peut-être problème mu tamit pertinence su yenn saa yi ouvrage yi ñuy def aussi je pense que xaw ma ñan ñoo koy. à la base ñen ñoo koy xalaat ñen ñoo koy def mais tamit on ne peut pas continuer à investir autant d'argent alors que saa yu tawee on a les mêmes problèmes loolu tamit euh, c'est un éternel recommencement loolu tamit munul nekk hmm. je pense que daal euh, parce que boo xaymaa depuis peut-être man deux mille 2004 bi may commencé du temps de Wade où mu amoon dinondation bu metti bi ba léegi boo xaymaa li ñu investir ci inondation mais saa waay alal ju bëree bëri la de alal ju bëree la mais boo xoolee ba léegi le problème il loin d'être réglé tey jii bu xiinee rek waa Kër Massar dañuy tiit yeneen gox dañuy tiit non c'est vrai c'est la mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. am na ñoo xam ne Mohamed yow yow lay euh, xiin di dënnu ngay dem sa yoon di ñibbi de am ñoo xam bu xiinee rek oh c'est-à-dire ñu ngi ci fitna ñu ngi ci fitna parce que xam nañ ne taw bi après dafay am yu muy àndal ñii day senn seen kaw ñii dañuy taa ñii non c'est difficile. donc mu nekk problème boo xam ne pour man war nañ ci gën a taxawaat. Mhm. xool ni ñu koy lijjantee quoi solutionné ko bu fekkee ni réellement ñenn ñi fi ñu dëkk. objectivement yoonu ndox la waaw day taa mhm. yoonu ndox la mais ñu déplacé leen une bonne fois pour toutes. Euh, tey rek xaw ma démb maa ngi xaw ma jàppatuma turu dëkk bi. Mhm. gis naa ñu doon ñaxtu sol ay rouge naan ñoom xanaa bokk du ñu ay sénégalais parce que ñoom. saa yu tawee dañuy am problème ñenn ñi déplacé nañ leen ñoom ba léegi gisuñu autorité. Hmm. loolu yàggul démb la xaw ma tey. gis naa ko ci benn ci benn télé. donc je pense que c' est un un problème global. Hmm. boo xam ne tamit réponse bi dafa war a global il faut que ñu xool toog saytuwaat. xool dëkk yi nga xam ne. Mhm. wala boog gox yi nga xam ne vraiment ay point bas lañu. les images ñu jéem a mhm. yi moom day day tiital sax nit. day tiital sax nit parce que aussi nit mënul dund ci ndox. c'est pas possible c'est dafa am ay être yu mën a dund ci ndox nit bokku ci. Mhm. donc vraiment bu fekkee ni ay bas fond la. et puis ay quartier ocas des des zones yi nga xam ne dafa jege lool jumaa ji xam waaw loolu ak màggal gi sama waa ji bu ci utul loolu ay pexe ñun fa lañ jëm. comme piscine comme non day doy waar te ay Touba bu inondé loolu beneen beneen beneen beneen affaire la. donc je pense que daal. am na ah, gone milliards yi. en tout cas milliards yi ñu suul bari na. <laughs> mais ba léegi aussi euh, résultat yi ñu ci doon xaar yëpp. peut-être am na nag ay zones yoo xam ne loolu tamit il faut pas le nier. Ah. il a dans certaines zones quand même. Euh, bu tawee dootuñu am problème. jidda caaray kaw ci la bokk parce que <laughs> c'est un milieu que je connais bien foofu bu tawaan nit ñi dañuy génn seen kër dem seen kër mbokk yi mais léegi vraiment. Euh, ouvrage yi ñu fa def soulager na leen euh, am na yeneen gox aussi yu ñu def su ouvrage hmm. mais bu fekkee ni nag dafa am gox yoo xam ne ñu fa dëkk saa su tawee day taa c'est-à-dire parce que ay bas-fonds la mais ñooñ tamit na état bi envisager hmm. des solutions définitives hmm. mooy fexe nu ñu leen déplacer woo yóbbu leen ci ay comme Wade l'avait peut-être fait même su fekkee ni jaxaay après taa na <laughs> parce que jaxaay aussi. <laughs> saafara su jur jàngoro. waaw jaxaay à la base saafara su jur jàngoro. de gens de de de Thiaroye Kaw. Uh-huh. lañ fa jëlee yóbbu leen jaxaay. mais après au bout de quelque temps dañoo gis ne jaxaay ci boppam. <laughs> Uh-huh. da doon inondé donc daal euh, nekk na problème boo xam ne Mohamed. bu uh-huh. sérieux la boo xam ne aussi dafa laaj solution yu sérieuse yu approfondie yoo xam ne aussi mu nekk ay solution définitive mais on ne peut pas faire. chaque année. parce que dugal ay parce que milliards tamit nu koy. milliards. Orsec. <laughs> Idi moom xam naa ne période bu léegi mu ñëw. non Orsec ñu ngi koy nuyu waa Kër Massar. Idrissa Diémé Orsec. <laughs> Sénégal dañoo dem ba xale yi xam nañ plan Orsec. mais mais ñu déclenché plan Orsec. donc je pense que te Orsec li muy li muy. ay milliards la li muy engloutir ci ay milliards dafa bari. non c'est que Mouhamed waxal nit ñi un milliard ñaata million la. mais man looloo man looloo ma yëm. 52 ah. milliards nga dugal man ah. Touba. Touba 52 milliards yi ñu wax ne def nañ ko ba. te ay la yoon mi combien de mi condita loolu tamit loolu neexul ci xol. Ah, loolu day naqari ci xol parce que 1 milliard. yaa xëy ci donc na ku ne am na ku ne eh, milliards yu ñu ne def nañ ko ci bu ñu ko jëndoon ay feuilles blanches mu naan ndox mi <laughs>